dawalkatu moto taxi Jakarta chauffeur yi tailleur yi bàjjenu gox yi kenn desul kenn ku ne jot nga sa limu ceeb ak lim bu nga xam ne bu takku a jëm ci ay masque maire bu Mbàkke du Mbàkke Ndaw wax nekkoon lii de ko softe la nga xam ne jotoon na ko def muy génne woon 15 millions de francs CFA jëndi ko ay dund jox ko askan wi waaye rax ci dolli jàppale lekkool bi nga xam ne doon waaj a ubbiwaat. junni ak ñaar téeméeri saako ceeb yu ñu jënd pour jàppale ko askan wi nga xamante ni feebar bi. def leen a laal ñooñu mën nañ cee wax ñi nga xamante ni mooy artisan yi ndax gis nañu ne bi mbas mi amee ba léegi seen liggéey doxatul jox nañ leen ci ñaar téeméeri saako ñi nga xamante ñooy chauffeur interurbain yi ñoom it jox nañu leen li nga xamante ni mooy téeméeri saako boole ko ñaar téeméeri masque boole ko ay lave yu bari ak ay détergent ak 4 thermoflash pour ñu mën a ubbiwaat garage yi li nga xam ñooy chauffeur taxi yi ñoom it jox nañ leen ci lu tollu juróom-ñetti fukki saak ak masque yi muy àndal li nga xamante ni mooy chauffeur jakarta ñoom it jox nañ leen ci juróom fukki saako dana ànd ak aussi ay masque yi nga xam moom la war a àndal chauffeur Mbàkke Tuubaa yi ñoom it am nañ ci juróom-ñetti fukki saako ak masque yi mu war a àndal ñi nga ñooy tailleur yi jox nañ leen ci téeméeri saako danañ ci boole masque yi nga xam moom la ñu war a ñi nga xam ñooy bàyyi peel yi ak ñii liggéey ci maçonnerie yi ñoom it yëf laal na leen jox na leen ci juróom-ñett fukki saako yoo xamante ni incha allah bi danañ ko enlever léegi li nga xamante ni mooy ñiy dawal charrette ñoom it yëf laal na leen jox nañ leen ci lu tollu juróom-ñett fukki saako ak masque yi war a àndal li nga xam mooy croix rouge ñu ngi leen di félicité bu baax ndax bi mbas mi amee waxtu yi nit di tëdd seen kër ngi jóg takk seen ndigg ne ci àll ne ci biir dëkk bi jigéen yu am doom ñoo lay yóbbu ku feebar ñoo lay jël si bàyyi seen lépp fanaan ci mbedd mi bu bët seen ñoom am nañ ci ñeent fukki saako bàjjenu gox yi ñoom it ay jigéen ñu jàmbaar ñoo xamante ni saa su jafe-jafe amee lu laal ci jigéen ak doomam ñooy jóg ñoom ñu sonn lañ ci mbas mi ndax heure yu nekk jóg nañ ko di accompagner jigéen ñi leen taxaw pour ñu mën a dem hôpital bu ñu tollee ci wàllu matu ñoom it am nañ ci juróom-benn fukki saako. kon léegi loolu mooy G bu njëkk bi nga xamante moom lañ jot a élaboré nii te it ni ma ko waxee bi état du Sénégal tegee benn plan de riposte national ñun commune Mbacké ñun dañoo sukkandiku ci plan de riposte national boobu teg benn plan de riposte communal. bii mën nañ ne mooy juróom-ñaareelu étape boo xamante nii def nañ ko saa su nekk rek fukki fan ak juróom yu nekk rek am na action jëm ñaar fukki fan bu ñu war a def boo xam mooy dëppoo ak jafe bi bi nga xamante ni mbas mi teg na ko population yi kon nag ñun suñu warugar mooy euh, segam commune démembrement état la bu état tegee programme da ci da ci da ci orienté wu euh, toog nag ci dëkk bi bokk ak population yi jafe-jafe yi

honorable député Fatma Diop rafetu loolu jëfu maire bu Mbàkke Abdou Mbàkke Ndaw di rafetu loolu bàyyi xel gi nga xam ne bàyyi na ko xel bàjjenu gox yi jox nañu place ci marché Mbàkke bi ci place boobu moo ñuy jox kiosque bañ fay teg ci place boobu mooy jënd machine wol ba nga xam ne moom la fa jigéen ñi di teg ginnaaw bu ñu ca jëlee juróom wala ñetti jigéen yóbbu leen Dakar ci formation professionnelle ñu former leen pour ñu mën a gérer seen bopp yor seen gestion bopp pour autonomisation de la femme bi président de la République bëgg jigéen ñi maanaam autonomisation dafa bëgg jigéen ju ne mën a dem ak boppam dootul dépendre ci kenn mooy monsieur le maire geste noble bii nga def ñoo ngi lay ñaanal ci kàttanu yàlla ak yonent bi yaa xam la nga bëgg te mu gën ci yow nag yal na la ko yàlla ak yonent bi defal parce que man du ma gërëm ku ma defalu dara yàlla teral na ma ba pare waaw te sëñ Abdoulaye woon na du ma gërëm ku ma defalu dara man mii jóob du ma gërëm ku ma defalu dara ndax namu ma dara. ak lépp loo xam ne lii nag matériel la boo ànd boo xam ne bii day dàq feebar bii nga xam ne moom la ñu la ñu indi magasin la ci duy ba mu fees mu woo ñu barki démb ba ñu mu jox ñu ko bëri trop. ci liñ mën a liñ mën a wax daal xam naa ne daal fii moom dëkk bi moom daj na ci mbooleem gaara yu taxi yi fi nekk ak gaara su gaara su Mbàkke Tuubaa ak gaara si inter urbain yi yëpp daal fu ci ne daj na ak loo xam ne lii teraanga yoo xam ni feebar bi moo tax mu jox ñu ko léegi nag dañ koy sant bu baax a baax lii mu def nag ñëpp la ko defal ndax wax dëgg yàlla su mbas mi su yëf yi jàllee mbas mi defe naa chauffeur yi ki leen ci gën a sonn bëriwut ndax ñoom gaare seeni oto tëj seeni gaaraas ñu toog defuñu dara képp koo xam ne kii jàpp nga leen jàppale nga leen dimb nga leen dimbale nga leen waaye nag lépp dafa métti ci ñëpp nag waaye buñ ci cité nag moom cité ko mu jàpp ci taxawaay taxaw ci taxawaay bu mel nii bët bu set mu duñu nemmiku duñu xool fan lañ toll ak lan lañuy def ak luñ bëgg loolu ku ko def dañ ko war a ñaanal yàlla sëfër yépp jàppale ko ci barkeb sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf gannaaw canta ngërëm gi nga xam ne dawalkatu jakartaa yi chauffeur si bàjjenu gox yi ak ñeneen ñëpp jëmale nañ ko ci merab Abdou Mbacke Ndaw moom sax mi ngi leen di xamal ne dana delloo buum ca boy boy ba saa su ne fileeg jàngoro bii di covid 19 jógewul ci askan wi